أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ak yéen ba tey ci kitaabu tawxid di jëlaat buntu baabun min ashirki an yastaxiida bi gayri llahi aw yadcu gayrahu buntab xettaliku kudul yàlla ci bokkaale la bokk wala ñaan kudul yàlla loolu dafa bokk ci xeetu bokkaale yi di xettaliku ci kudul yàlla wala ludul yàlla mbokk yi loolu ci xeetu bokkaale la bokk wala ngay ñaan kudul yàlla subhanahu wa taala bu ñëwee ci min ahdaafi dars mooy danañ fa fekk ñetti mbir bi ci njëkk an yetadakkara al muslim aqsaam al istigaasa mooy jullit bi war naa xam xaaju xettaliku yi dars bële passé waxoon nañ lan mooy xettaliku kon jullit bi war naa xam tey jàng xeetu xettaliku yi ba bu ci nekk mu def ko palaasam mu bañ di ko jaawale wala mu koy jaxase ñaareel bi an yufarriqa muslim bayna du'a'i wal istighatha jullit bi na mën a ràññee mën a tàqale diggante ñaan ak xettaliku léeg-léeg nit jël palaasu xettaliku dugal ko ci ñaan léeg-léeg mu jël ñaan def ko ci palaasu xettaliku jullit bi nag loolu daf ko war a ràññee mu xam fan lañ war a ñaan ak fan lañ war a xettaliko ñetteel mooy an yastantijal muslim anna du'a gayrullahi shirkul akbar jullit bi na ballal xam mu leer ci moom ne ñaan ku dul yàlla bokkaale la saa yoo ñaanee tàllalee sa loxo ci bàmmeel wala garab wala xërëm yëgal ne bokkaale nga bokkaale bi nga xam ne yàlla du ko baale su ñëwee ci madaxalul baab bunt bi ñuy duggee danañ fa fekk benn tomb mooy lan addu'a wal istigaasa min anwaai l ibada allati tusrafu lillahi wahda loolu ñu naan ñaan loolu ñu naan xettaliku dafa bokk ci xeetu jaamu yàlla yi soo ko joxee kudul yàlla rek bokkaale nga kon mbokk yi kuy ñaan ñaanal yàlla kuy xettaliku xettalikul ci yàlla lan moo tax ñaan nekk jaamu yàlla yonent bi ne addu'a huwa al ibada ñaan mooy jaamu yàlla beneen riwaaya bi mu ne addu'a silahul mu'min ñaan mooy ngànnaayu julit beneen bi mu ne addu'a muxul ibada ñaan mooy yuq jaamu yàlla lu tax mooy dafa am lu jaam bi bëgg mënu ko kenn mënu ko kudul yàlla nga sukk ci baa ci kanamu yàlla moomu dik ko ñaan loolu moo tax jaamu yàlla la lu mel noonu nag boo ko defee ci garab wala nga def ko ci bàmmeel wala ak ëkk wala bokkaale nga parce que da ngaa jël li yàlla moom nga jox ko keneen te saa yoo jëlee lu yàlla moom nga jox ko keneen yow bokkaale nga moo tax ku nekk nañ ko jox lu moom yàlla moo moom loolu beneen bi mooy xettaliku tey li xew ci jamono nit dugg ci gaal gaal gi war a lap wala war a suux ña nekk ca gaal ga wala ñu woo yàlla ñuy woo ay mbindeef waxuma la sax mbindeef yuy dund waaye ay mbindeef yu dee loolu bokkaale la ndax mbindeef yooyu buñ doon dund sax te nekkuñu ci gaal gi nekk ca tefes ba mënuñu téye gaal gi rawatina nag ba ñu faatoo ñu suul leen ci bàmmeel naka la ñuy téye gaal gi kon sooy woo jamono boobu woowal allahu subhanahu wa taala woowal sa boroom sunu boroom subhanahu wa taala nee na man ku ma woo ma wuyu ko wa ida saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daai ida daani yàlla nee na bu la jaam ñi laajee man yàlla fan laa nekk ne leen damaa jege ba ku ma woo ma wuyu la mbokk yi yàlla soriwuñu yàlla moonu gën a jege sunu buumu xol yi wa aqrabu ilaykum min hablil warid yàlla nee na diggante bakkan bi cordon yi fi jaar dem ci poumon yi di xëcc ngelaw li muy dem ci bakkan bi bakkan bi di xëcc muy ñëw yàlla nee na loolu man maa la ko gën a jege kon kay yàlla soriwu la kon kuy ñaan na ñaan yàlla subhanahu wa taala mu bañ a bokkaale ndax bokkaale yàlla du ko baale innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu annaar wa ma lizzalimina min ansar yàlla nee na képp ku ma bokkaale rek araamal naa sa tur ci aljanna bu doon liste la gome nañ sa tur yow yow safara nga jëm direct ñaareelu tomb ci madaxal mu ne wa man sarafa li gayri llahi shay'an min xasaisi llahi faqad ashraka képp ku jël dara lu yàlla moom nga jox ko mbindeef wala nga jox ko leneen wala keneen loo xam ne yàlla moo koy moo ko yeyoo yàlla moo ko jagoo yàllaa ko moom nga ni ko roseet ci yàlla di ko jox keneen ñu ne yow faqad ashraka bokkaale nga kon nañu bàyyi xel bu baax a baax li yàlla moom ak li keneen moom li yàlla moom moom dong moo ko moom keneen moomu ko li keneen moom moo ko moom tey sa soxna bu jëleen li nga moom jox ko beneen góor rek nu sëy bi di def da nga koy fase lu tax ndax dafa jël loo moom démb dama dem benn dëj ma def waxtaan ba pare rek benn waaye ne ma dama la soxla ma ni ko ah mu ne waaw te c'est urgent léegi léegi nii dama doon romb fii rek xaw ma fii sax lu fi xew après laa laajte ñu ne ma dëj la mais ni ma déggee nga wax fii sama laaj bi yow dong dong yaa ma ci doy man de jaa ma indi ay siège ne ko bismillah ñu isolé wu mu ne dama bëgg su ma ñibbee léegi fase sama jabar mais balaa may dem xaaral ma laaj ma tàggu la ba ma wax ak yow ba pare ba nga wax ma lu ci islam wax ma ne ko alhamdulillah ma ne ko mbaa jàmm la la def mu ne dama ko gis mu dugg ci benn oto dama ko fekk ci benn oto mu nekk ak benn góor ma ne ko loolu kese mu ne ma waaw waaw baax ma ne ko ndax da ngaa gis mu njaaloo mu ne ma déedéet ndax da nga koo dégg mu ne ma déedéet ndax da ngaa seetlu ci moom lu bon mu ne ma déedéet ma ne ko lan ngeen séq seen relation mu ne ku baax ci man la de lu ne la may defal ma ne ko ah en tout cas leen de la la lislaam wax boo indee ñeenti seede yu wonee yu wax ne gis nañ mu njaaloo sëy bi tas boo ko indiwul nag yow dañ laa war a yóbbu ci jàkka ji dama la war a yóbbaale jàkka ji sax ñu caw la mu ne ma waaw yaa ngi tuumaal ndaw si di dañ la war a caw de defal attention de dañ lay caw de juróom-ñetti fukki yar mu ne teg man ko te nga téye sa jabar te ragal yàlla te nga wax di ko beneen yoonee ba pare lu garaaw mu ne ma loolu avant ma koy takk la laa ko fekk ci benn oto avant ma koy takk mu ne loolu nag moo ma jàpp ba léegi nii bi ma ko takkee wóolootuma ko ndeysaan ma ne ko daal boo demee comme takk nga ko mu ne ah ma ne ko boo demee téye sa jabar ak fukki loxo te nga génn yii seytaane di def sa xel naan la fekkoon nga ko ci otoog nangam nangam yow gisoo déggoo kenn waxu la ne def na lu bon kon téyel sa soxna gis ngeen kon l'islam du ñun suñu xel yi lu mu xalaat rek ñu daal di koy dugal ci l'islam l'islam diine la aw dundin la aw tëralin la wu yàlla tëral ne nañ ko dundee yàlla am lu mu moom am lu mu jox yonent bi nit ñi kenn ku nekk am lu mu la jox borom kër gi am na lu ko yàlla jox soxna si am na lu mu ko jox doom yi am na lu mu leen jox gis nga doom yi bu ñu bàyyee li seen baay moom tey boo amoon doom rek nga ni ko demal bitig ba jëndal ma mu dem ba ci digg mbedd mi am ku ko ne bàyyil sa baay li mu la yónni nga ñëw li mu la yónni doom jooju bu ñëwee noo koy def jabar ji jabar ji tamit bu dindee li nga moom jox ko keneen nooy def ah c'est ça le problème yow tamit boo bàyyee sa soxna li moom nga dem feneen sa soxna nu muy def loolu la kon kenn ku nekk da nga am loo moom yàlla subhaanahu wa taala dafa am lu mu moom lim moom nañ ko ko jox bu ñëwee ci dars bi bi ñu jël tey aaya baa ngi nekk ci suratu yunus aaya 106 aaya 107 sunu borom subhaanahu wa taala mu ne wala tad'u min duni illahi ma la yanfauka wala yadurruk fa in faalta fa innaka idan min alzalimin wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhayrin fala radda lifadlihi yusibu bihi man yasha yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa alghafuru rahim suratu yunus aya 106 aya 107 suñu borom subhanahu wa taala mu ne wala tad'u bul woo bul ñaan bul jaamu min dunillahi kudul yàlla mukk bul ko def bul ñaan bul woo bul jaamu min dunillahi kudul yàlla maa laa yanfauka koo xam ne du la jëriñ wala yadurruka du la lor allahu akbar bul woo ku la dul wuyu nit ku dee dee ay siècle ay génération tey li wóor mooy buñ jëloon peel di gas bàmmeel bi duñ fa fekk nit duñ fa fekk sax yàq nga bëgg a tiim ci bàmmeel boobu di woo borom bàmmeel bi pour mu xettali la waxuma sax bàmmeel waaye nga bëgg a tiim garab wala nga bëgg a tiim ab guy nga koy ñaan te sunu borom moo la wax ci alquran mi ngi nii muy aaya boo xam ne yàlla moo la ko wax kenn waxu la ko kudul yàlla yàlla moo ne la wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk bul woo kudul yàlla koo xam ne du la jëriñ du la lor bu fekkee njëriñ nga yaakaaroon yàlla nee na la waa ji du la jëriñ bu fekkee da nga yaakaaroon ne boo ko woowul da ngay lor yàlla nee na munu laa lor ndeysaan tukulóor yi dañ naan dudd korkor so tey won ko nafata yoo tuutee réedu mum bul woo bul ñaan ku dul yàlla koo xam ne mënul mu ne wa in faalta saa yoo reppee ba def ko fa innaka izan min azalimin yëgal ne tooñkat nga yëgal ne léegi bokkaale kat nga saa yoo woowee ku dul yàlla mu ne yëgal ne ba nga woowee ku dul yàlla rek fa in faalta mu ne soo ko defee ci jamono boobu nga ko def ñu ne ah mu ne fa innaka yow mi def loolu isan na nga yëg ne kon nag min azalimina yaa ngi bokk ci bokkaalekat yi foofu baatu tooñ mu ngi tekki ashirk comme ni mu nekkee ci suratu luqman yàlla ne inna shirka la zulmun azim bokkaale tooñ bu rëy la fii tamit baat bi yàlla ne min alzalimin min al mushrikin saa yoo woowee ku dul yàlla yëgal ne yow léegi waxuma tooñkat waaye léegi bokkaale kat nga ndax tooñ bi gën a rëy ci tooñ yi mooy nga utal yàlla ndend nga dendaleeg yàlla kenn yaa nga war a woo yàlla nga woo keneen ku dul yàlla rawatina nag li ngay woo yàlla rek moo ko mën li ngay ñaan waa ji pour mu may la waa ji mënu ko yàlla moo ko mën lu tax doo dem ci yàlla lu tax doo jàpp julli ñaar ràkk sujjóot nga ñaan sa borom lu tax yàlla nee na boo ma woowee ma wuyu la sori wu ma la lu tax doo ko ñaan te yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale maa ya'ba'u bikum rabbi lawlaa du'aa'ukum su ngeen ma dul woon ñaan du ma leen faale te ñii rëy rëy lu bañ maa ñaan inil lazina yastakbiruna an ibadati sayadxuluna jahannama taaxirin yàlla nee na ñii réy réylu bañ maa ñaan bu ñuy dee ma leen di lakk am na ci jaam yi nag duñ ñaan yàlla moom parce que dañoo rëy billahi allazi la ilaha illa am na ci nit ñi duñ ñaan yàlla booy ñaan sax ni la ñuy def nga pare nga gis nit ñi pare naan ni ñoom ñu ne parce que lu tax parce que am nañ xaalis lu tax parce que seen loxo jot na seen ginnaaw jàpp nañ ne ñoom soxlaaluñu yàlla dara moo tax duñ ko ñaan loolu musiba weesuwul loolu mbokk yi ñaareelu aaya bi mu ne sunu boroom ne wa in yamsaska allahu bi durrin su la yàlla tegee lor su la yàlla tegee natt fala kaashifa lahu kenn mun koo dindi ku dul yàlla wallahi alazim wallahi alazim mbokk yi ku yàlla teg dara wallahi kenn mun koo dindi ay nit feebar nañ fi yóbbu leen fu nekk partout ci àdduna bi kenn mënul fexe ba ñu wér jigéen ñàkk na doom ñu wër fu ne ci àdduna bi mënuñoo fexe ba mu am doom góor ñàkk na doom ñu wër fu ne ci àdduna bi mënul fexe ba am doom nit bëggal nañ ko dara ñépp jàpp ci mënul nekk semaine passée benn waaye daf ma woo biir këram may waxtaan ak moom mu may nettali fu mu jaar ba mu ñibbi si Sénégal mu ne ma Italie laa nekkoon yàlla def may liggéey diggante tribunal bi ak aéroport bi maay traduiral étranger yi bu ñu ñëwee mu ne ku fa sa jabar dugg maa ko fa dugal ci sama loxo la jaar maay bind demande yi dim déposé soo demee sa jabar ñëw mu ne man ma ñëw Sénégal takk soxna ma dem déposé mënul ñëw yemul ci mënul ñëw waaye mu ne colonel bi gën a rëy ci aéroport bi nga xam ne moo yor sécurité aéroport bi téléphoné ambassade Sénégal fii pour ñu bàyyi soxna si te te fexe mënul ñëw gis nga parce que yàlla dogalul mu dem foofu yàlla bu rëddee ku yeba noppalu ki sonn mooy ki yàlla ne lii la nga ni du loolu da nga nar a deemee li yàlla wax mooy am benn waay benn buur dafa mere benn waay ne ko yow dama lay rey mu bind lettre jox ko mu ne demal nga yóbbu ko place sangam mu bind ci bu yegsee rek rey leen ko waa ji jël lettre bi ndeke buur bi bu muy bind au lieu mu ne yuqutal mu ne lan dafa bi waroon bind rey leen ko mu ne libéré leen ko loolu bind lettre bi ñëw gars yi xool ne ko dama nga ñëwee buur bi def trois jours ni tëll rek gis ko ni ko xeet loo fi def mu ne lan la xam nga mënu ko wax ne damaa waxoon ñu rey la mu ne xaaral mu mu mu yónnee ñu yónnee ko lettre bi mu gis lim ci bind mooy day dund mu ne kon kii day dund yàlla na day dund day dund su yàlla waxee nit wax day sonn lu yàlla wax mooy am nit day sonn rek bu yàlla ne lii mooy am loolu mooy am kon yàlla bu la tegee natt sunu borom nee na wa in yamsaska allahu bi durrin man yàlla bu ma la tegee lor fala kaashifa lahu illa huwa kenn mënu ko dindi ku dul moom kon dee ngaa dem ñaan ko mu dandi ko yàlla moo la ko teg ñaan ko mu teggil la ko ngay dem ci ay doomu aadama yoo xam ne mënuñu dara xamuñu luy xew suba dara lañ mënul ma ni bëri na ci kaw suuf tey lu doomu aadama bëgg mu am yàlla mu ne du am ak a bëri suñu élection yi passé wane na ci dara am na ñu fi bàkk woon def fi lu nekk fëgg fi seen dënn yàlla lànk te du te du élection yii rek moom kay daanaka élection yi ñëw Sénégal yàlla toroxal ay nit parce que dañ doon mbir mi du yéen man la mbir mi mbirum nguur la te qul illahumma malikal mulk tuutil mulk man tasha kenn xalaatul woon Sénégal Macky Sall dina nekk président Sénégal kenn xalaatu ko waaye yàlla mooy joxe nguur mbir bi fi la nekk ci loxoom nee na yutil mulka man yasha maay jox nguur ku ma neex jeex na ku yàlla far rek nga falu su adduna bi yëpp àndoon ne la du yow te yàlla ne yow la yow la su adduna bi yëpp àndoon ne du yow te yàlla ne yow la yow la kon loolu na ko na leer nit ñi mu ne wa in yuridka bi xayrin bu la yàlla nammalee yiw nar laa defal jàmm fala radda li fadlihi kenn mënul dindi xéewal googu yàlla indil la bu yàlla joxee kenn xéewal wallahi xéewal gi kenn mënu ko téye day ñëw bu ko yàlla téye it kenn mënu ko indi maa yumsiku llahu min rahmatin fala mursala la wa maa yumsik fala mursala la yàlla nee na bu ma téye kenn du ko indi su ma ko bàyyee mu dem kenn mënu ko téye gis ngeen yàlla léegi nag gis nga lii moo tax alquran su ko ay jullit di dundee de seen pas-pas day dëgër waaye nag jullit yi dund alquran laa waxuma yi nga xam ne dañuy dundantu ndax dund alquran ak dundantu ko du benn lan moo tax tey jullit yi mel nii c'est parce que du njàng alquran xamuñu alquran bi lu muy tekki da ngay gis ay nit yoo xam ne ñu ngi yor ay tabala di fecc ay aaya yoo xam ne jahannama lay wax wajaa rabbuka wajaa rabbuka wal malaku safan safan rëngët rëng rëng loolu lan lay tekki lan la yàlla di wax foofu yowmal xiyaam la yàlla di wax ëllëg yowmal xiyaam sa borom day ñëw ñu ubbi safara jahannam ñu seene safara asamaan si xotteeku malaaka yi wàcc yàlla nekk keroog doomu aadama dina waaru nit di fecc loolu xamul lu muy tekki taaye boobu dong lu boobu dong laa ñemee waxam di ngay gis ay nit di woy ay aaya alxuraan safara di fecc Sénégal c'est parce que jànguñu ko xamuñu lu muy tekki loolu moo tax aaya yii du ñu jëriñ bul woo ku dul yàlla bul ñaan ku dul yàlla su la yàlla tegee nattu kenn mënu ko dindi su la yàlla indilee yiw kenn mënu ko téye soo jàngee loolu da ngay noppalu dootoo dem di jaamu ji ay xërëm lu la doomu aadama wax da ngay xam ne su neexee yàlla lay am su neexul yàlla du am waaye bu fekkee yow sa yoon nekku ci alxuraan lu xëy nga dem ngelaw de ngelaw li fu mu uppee rek nga daal di ànd ak moom mu ne wa in yurid ka bi xayrin bu la yàlla nammalee yiw lu baax yàlla di la ko jox mu ne fala radda li fadlihi kenn munta delloo wallahi kenn munta delloo yiw woowu mbokk yi alquran mooy téere bi nga xam ne moom dong dong dong dong dong dong moo ñu mun a former ba ñu am tawxid xoolal diggante Moussa ak Firawna yàlla nee na Moussa day judd Firawna njabarkat yi ne ko fii bu fi xale bu góor juddoo boo ko fi bàyyee bu màggee dalay folli Firawna bëgg na yàlla bëgg te Firawna ngi rey liir yi ku judd mu rey yow bu fekkoon ne yow yaay programme programme boobu nooy def ku judd ñu rey ko te yow yaa ko war a programme nooy def danga naan comme waa jaa ngi rey naa bàyyi ba beneen année wala ba mu fàtte ko ma doog a jàllale programme bi wala wallahi Firawna Moussa dafa judd judd Firawna yëgu ko de yàlla jël liir bi teg ko ci ñu dugal ko ci kees ñu dugal kees gi ci biir ndox yàlla buus gaal géej kees gi ba ci kër Firawna Firawna moom mu doon reyaate yàlla mu ne ko xale bu góor baa ngi nii xam nga ñee moom dañ doon fekk seen kër di leen rey xoola kii judd fu kenn fekkewul ñu teg ko ci kees gi teg ko ci géej gi géej gi yóbbu ko kër Firawna yàlla mu ne ana Firawna mu ne maa ngi nii mu ne xale bu góor baa ngi nii acca bismillah rey ko Firawna da ko xool rek yàlla mu ne wa alqaytu ilayka mahabbatan min te ko xool rek daan ne non c'est pas possible xale bi fóon commencé di fóon di ko fóon parce que yàlla moo ko jël dugal ko ci biir xol bi gis nga te moom mooy reyaate moom fàtte na ne moom moo tëral loi bi ku juddu rey leen gis nga yàlla xanaa kay yàlla boog bi xale bi juddoo mënoon nañoo jël nëbbi ko ci àll ba mais déedéet parce que programme o yàlla la nit ñi bu ñu gëmee yàlla dañuy rëcc waaye bu ñu gëmulee yàlla lii rek mooy am wala benn waaye xoolee sax ah yow la yow ñu ne la baalu ko de déggul olof bokk na la baal bokk na la baal kii bambara la de mbaa bambara nekkul ci jàkka ji nga dégg nga nga dem jëndi guro mu ne mu ne amu nga sensu amu nga sensu waaw amu nga sensu gis nga allahu akbar parce que ñàkk ragal yàlla nit ñi comme ragaluñu yàlla nag foog ñu ragal seen morom ku ragalul yàlla foog nga ragal sa morom wa in yuridka bi xayrin bu la yàlla nammalee yiw fala radda li fadlihi wallahi yiwu yàlla kenn mun ko delloo mu ne yusibu bihi man yasha sama yiw maa koy jox ku ma neex min ibadihi ci jaam yi ku ma neex ku ma neex ci jaam yi man yàlla maa lay tànn jox la samay xéewal ku ma neex rek mu ne wa huwa alghafuru rahim moom yàlla mooy jéggale mooy yërëme kon aaya bi mbokk yi lim ñuy jàngal lu njëkk mooy al istigaasa hiya talabul gaws xettaliku mooy sàkku xettaliku ci nit mooy mu dindil la tar tar da ngaa feebar nga ñëw ci nit pour mu dindil la feebar bi da ngaa am jafe-jafe da ngaa bëgg a tukki da ngaa bëgg dara nga ñëw ci nit kooku da ngay waaj a lab da ngay waaj a suux nga ñëw ci nit wala nga koy woo pour mu daan lay génne ci suux boobu ngay suux loolu mooy xettaliku da ngaa wadd ci essence di ñëw ci suuf eggagoo ngay woo nit kooku pour mu jàpp la wala booy daanu boog bu daanu bu métti pour bu la dara dal loolu mooy xettaliku loolu nag yàllaa ko moom mbindeef moomu ko mu ne wala takunu illa min makrubin du nekk lu dul ci jamono tartar du nekk lu dul ci ku ñu natt wa qad istaxaasa annabi sallallahu alayhi wa sallam bi rabbihi yowma badrin gis nga keroog badr yonent bi saa sallam bi mu àndeeg jullit yi ñu ñëw ba ndoxu badr yonent bi xam na mu ngi ànd ak ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett la àndal jékki-jékki rek dégg ndënd yi ak riit yi ak sara xolle yi ñu siggi ndeke yéeféer yee ñëw yonent bi xool leen ñu bëri lool ndeke junni lañu junni ak ñetti téeméer nañu xeex ah junni ak ñetti téeméer foog ñett rek yonent bi tàllal loxoom ya borom bi dafa ñaan ba kaala gi wadd daanu ci suuf Abubakar jël kaala gi tegaat ko yonent bi ñaan ba kaala gi wadd Abubakar tegaat xoolal mu ngi ñaan yàlla xettalikul ci kenn parce que musiba mooy ñëw yéeféer yooyu ñëw dañoo am doole ñu ngi yegg seen ngànnaay dañoo bëri fan la jullit yi war a làqatu yonent bi di ñaan boroomam gis nga yonent bi fan la xettaliku ci sunu boroom kon booy xettaliku xettalikul ci yàlla subhanahu wa taala loolu yàlla moo ñu ko nettali keroog yonent bi dafa tàllal ay loxoom di ñaan yàlla mu ne ci suratul anfal aya 9 mu ne istastaxiisuuna rabb rabbakum fastajaaba lakum xoolal keroog yéen a ngi xettaliku ci seen boroom yàlla daal leen di nangul istastaxiisuuna rabbakum fastajaaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaika yàlla nee na keroog bi ngeen di xettaliku man yàlla ngeen xettaliku man yàlla ngeen ñaan bi ngeen ma ñaanee man yàlla lan laa def dama wàcc ay malaika ñu ñëw di leen jàppale ci xeex bi kon jullit nay ñaan yàlla nettali naa leen darse bi passé borom gëléem gi kan la woo yàlla yàlla envoyé ko malaayika malaaka bi ñëw xettali ko ibrahim ci biir safara si kan la woo yàlla xettali ko Moussa ci biir géej gi ku mu woo yàlla xettali ko yonent yàlla muhammad ci xuntuma ku mu woo yusuf ci biir teen bi ku mu woo lan woo yàlla xoolal yunus ci biir géej ci biir jën bi yunus lan la doon wax laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin yàlla mu ne lawla kaana min almusabbihin la labisa fi batnil xuuti ila yawmin yubasun bu fekkonte ne du lu bi mu nekkee ci biir jën bi jën bi won na ko su fekkonte ne de nekkul ci jën bi di sàbbal yàlla di woo yàlla yàlla nee na dana nekk ci jën bi ba yowmal qiyaamati noonu lay nekk ci biir jën bi won na ko waaye da doon woo yàlla ba mu wooyee yàlla lan la def yàlla mu ne fa nabasnaahu fil ara'i wa huwa mulim jën bi dem bëgg tefes daal di koy génne parce que da doon woo yàlla kon nan woo yàlla ana yàlla dafee nekkul wala liñ koy doy mënu ko tontu bi mooy ah kay mi ngi fi te mën na ko te yow ki ngay woo anamu nekku fi dee na bu yàgg seytaane mooy def ci suñu xel yi ne ñooñu ñuy woo mën nañu dara fekk wallahi mënuñu seytaane moo nuy nax yàlla rek moo mën ku mënoon dara doo dee ku mënoon doo dee kenn du la suul kon kay buñ la yóbbee yi ñëwaatal comme mën nga bu la gaa yóbbee ba nga yëg rek ba dugal suuf si rek génnal waaye mën nga ko mënoo ma ne bu gaa yóbbu rek sa jabar keneen takk ko wala sa jëkkër takk keneen parce que mënoo àllaaxira kay ngay fekk bëgg a jóg suuf si téye la parce que sa jabar moom keneen a ji keneen keneen mënoo kon nag nanuñu woo yàlla subhanahu wa taala yàlla mooy borom kun fa yakun moo mën lépp waaw laaj leen badu badu mu ne woon moo mën lépp xam ngeen badu laaj leen ko moo ne woon moo mën lépp waaye mujj na bañ ko dóoree ci biir kaso bi mu ne ndeke man mënuma dara waaw leer na kon yàlla mën lépp mbokk yi mbokk yi xettaliku ñaari façon la qismaan wa hiya qismaan istigaasa shirkiya xettaliku boo xam ne bokkaale la mooy bëgg wallu bëgg ku la dimbali ku la musal boo xam ne bokkaale la waye istiraas bi mayit mooy xettaliku ci ku dee allahu akbar ku dee dañu laaj ibrahim bur annahab ñu ne ko ñun de dañu am problème mu ne ban problème ngeen am ñu ne ko borom xam-xam yi dañuy wax te nit ñi jubuñ lu tax mu ne waaw normal na de ndax démb borom xam-xam yi nit ñi dañ doon nelaw borom xam-xam yi di leen yee mu ne tey xam tey borom xam-xam yi dañuy nelaw nit ñi dee est-ce que kuy nelaw mun naa yeeku dee kuy nelaw mun naa yeeku dee léegi nag waxuma la kuy nelaw yeeku dee mais yow nga bëgg a tiim ci bàmmeel waa joo xam ne ba mu deewee juddoogoo fekkee woo ko nga bëgg a tiim ci bàmmeelam ne na nga ko woo wala nga ñaan ko riir weesuwul lool benn waay dafa dem ci benn bàmmeel di ñaan visa laa bëgg wallahi visa laa bëgg diw dimbali ma ci visa bi sonn na benn waaye bu mu dendaloon di ko xool ba jaag ne ko grand mu ne ah ne sëriñ bi nekk fi de dafa dem Dakar kooku ne ko yow xanaa da nga dof yow kii dee bàmmeelam a ngi nii nga naan dafa dem Dakar mu ne ko boo gëmoon ne bàmmeelam a ngi nii kay doo ko ñaan allahu akbar xoola biñ la ne mi ngi Dakar gëmoo ko kon kay jëfu ndof la ku dee kenn du ko ñaan ku dee au contraire dañ koy ñaanal loolu la nit ñi di juum da ngay gis ku ziyaara ju bàmmeel au lieu mu ñaanal ki fa tëdd moom mu ñëw di ñaan kii tëdd fii miskin lu mu mun xanaa gisoo bi mu deewee luñ ko defal dañ koo sang kan ci ñun fii la ñuy sang ña- ña- bu la sa jabar ne woon kaa ma sang la nga ne ko ñaanal ma jàmm sa jabar rek te pourtant mun na nekk waaye nag ñaanal ma jàmm de boo ma bëgg a tur rek nga wax gis nga te pourtant yéen a ngi dund yéen ñaar mun na nekk mu sang la dara nekku ci waaye buñ la ko bëggoon def léegi nga bañ kon ku dee ki moom lan lañ ko def dañ ko dañ ko sang allahu akbar te ki la doon sang fépp la loxoom dugg ci yow fépp la loxoom di dugg sa awra yëpp la lay raxasal waaw su su waa ji mënoon dara lool mu defal ko boppam wala da ngeen ma bëgg a wax ne ñooñu bokkuñ ci allahu akbar yonent yàlla muhammad dong lañ sang da bañ koy sang ñu ngi ko sang ci kaw yére yi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu paree sang dañ koo sang ñu la doon sang dañ laa futti sang la biñ pare ñu yeew la yeew tànk yi yeew óom yi yeew ndigg li boole kook loxo bi yeew dënn yi yeew bopp bi boole kook baat bi yooyu yëpp dañ la ko defal pare ñu yenu la tee la ci kanamu jumaa ji jullee la pare yenu teg ci oto yóbbu ba ci armeel yi gas bu mu xool ñu suul li yëpp dañ la ko defal kon xanaa yow mënoo dara ndax defaloo ko sa bopp kon nañu delloo suñu xel nga defal lii ba pare def lii ba pare suba nga del si nag toog jàppandu ii visa laa bëgg ndox weesuwul loolu wala feebar bi laa bëgg nga fajal ma moom feebar bu ngand bi moo ko dal te mooy dee bu dul wér bi kon dafa am xettaliku boo xam ne bokkaale la mooy xettaliku ci ku dee aw gaaibin wala ku fi nekkul wallahi alazim allahu akbar mbokk yi kenn ci ñun fii kan la fi papaam di dund dama leen laaj yéen ñi toog fii kan la fi papaam di dund yow li la doon dóor fii ci jumaa ji nga yuux sa papa ndax dina la xettali si anamu moom mu ngi ci kër ga su la doon dóor fii la nga yuux wala distance bi du ko dégg du ñëw léegi nag nga bëgg woo ku dee koo xam ne nekkatul àdduna de lan la ñuy wax moom de daa génn àdduna diw daa génn àdduna buñ la koy tàggee sax lu ñuy wax moom de génn na àdduna diw daa génn àdduna waaw ku génn àdduna nga nekk àdduna di ko woote moom génn na àdduna allahu akbar wala waxu leen loolu bu ñu dee looy wax bu ñu dee looy wax xanaa la ku génn àdduna ku génn àdduna ñu koy woo bu koy woo nekkatul ci àdduna nga bu koo woo nekkatul ci àdduna bi wala waxuñu loolu wala du ngeen dégg ñu ne diw dafa génn àdduna allahu akbar kon ku fi nekkul kenn du ko woo ku fi nekk te liñ koy doyee mu mën ci dara kooku la ñuy woo moom mooy alxaayib beneen bi mooy moom moomu nga xam ne nekk fi suñ koy woo nañ ko woo ci lum mën fii maa yaqdir buñ ko woo mukk fii maa laa yaqdir ci lu mu àttanul mënul ñaareel bi mooy istiraasa jaiz mooy xettaliku bu dagan ban laa doon wax sànq ban laa doon wax sànq xettaliku xettaliku bu daganul def ko mode d'avion xettaliku bu daganul wala ba mooy ban xettaliku bu daganul ban ak ban la xettaliku bu daganul ban ak ban la ngeen da ngeen toog nii rek de lii pour ñun la yeneen jël xettaliku bu daganul ban ak ban la mooy woo ku dee walla ku fi nekkul loolu bokkaale la bi dagan mooy istiraasa bil xay alxaadir fi ma yaqdiru alayhi mooy xettaliku ku fi nekk koo xam ne li nga koy wax na ñëw dimbali la ci mën na ko da ngaa toog léegi am lu daanu sa kaw mënoo koo dindi nga gis koo xam nga yuuxu turam ne ko ñëwal ñëwal wàllu ma ñëwal wàllu ma loolu dagan na parce que mu ngi fi te li nga koy wax na ñëw dindil la ko mën na koo dindi kon loolu dara nekku ci waaye bu fekkonte ne waa ji nekku fi wala li nga koy bëgg a def loo mënu ko loolu bokkaale la sunu borom subhanahu wa taala mu ne keroog ba ngeen xettalikoo yàlla subhanahu wa taala fastaxaadahu alladi min chiatihi ala alladi min aduwihi yonte yàlla Moussa dafa dugg ci biir cité bi mu fekk ñaari nit di xeex kenn ki farandoo Moussa la parce que ñoo bokk xeet keneen ki israélien la bokkul ak Moussa égyptien la bokkul ak Moussa keneen ki israélien la Moussa la bokkal égyptien bi wala israélien bi daal di woo Moussa ne ko ñëwal wàllu ma Moussa daal di bàyyi lim doon def ñëw daal di bumax égyptien bi égyptien bi daal di daanu dee kon xettaliku boobu dagan na puisque dañ ko doon néewal doone di ko dóor mu gis ku ko mën a atte mën ko dimbali mu woo koo kooku ñëw loolu da loolu dara nekku ci waaye xam nga lu ñuy bañ nga jox nit lu mu mënul tey bu fekkoon ne waajooju dañ ko doon dóor muy woo bàmmeel ndax bàmmeel bi dina jóg ki tëdd ci bàmmeel bi dina jóg ubbi bàmmeel bi ñëw xet atte ko ba pare dem tëddaat xam nga loolu mënul nekk kon dafa am xettaliku bu dagan wax naa leen ko am xettaliku bu daganul ñaar yëpp loolu mooy misaal yi suñu borom subhanahu wa taala mu ne ñaareelu élément bi mooy du'a u xayrullahi shirkul akbar yunafi tawxid ñaan ku dul yàlla bokkaale la dafay dàq tawxid ñaan ku dul yàlla loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ci suñu dund mbokk yi ñu fexe bu ñuy ñaan ñu ñaan yàlla bu ñu ñaan yàq mukk di ci dugal kudul yàlla ñaan yàllaa ko moom ñaan kudul yàlla bokkaale la naha allahu subhanahu wa taala nabiyahu an yadu ahadan min dunihi min sha'iril makhluqin yàlla moo tere yonent bi yàlla moo tere jullit yi ñuy ñaan mbindeef bàyyi yàlla al ajiz ku tële koo xam ne mënul indi njëriñ mënul indi lor nga koy ñaan loolu sunu borom daf ko tere jullit yi koo xam ne mënul dindil mënul indi njëriñ mënul dindi lor te wan nahi amun li jamiul umma tere bi dafa matale xeet wi yëpp su yàlla teree yonent bi dara du yonent bi rek la ko tere waaye ñëpp la ko tere lu tax yàlla ne yonent bi parce que dafa bëgg jullit ñu roy ci yonent bi moo tax mu koy adressé yonent bi ndax yonent bi moom mooy ku ñu war a roy ku ñu war a toppandoo kon lu ko yàlla tere tere nañu ko pour ñu roy ko bàyyi loolu yàlla li mu jagleel yonent bi saa salaam nga xam ne yonent bi dong moo ko moom alxuraan daf ciy wax chaque jour xaalisatan laka min du'nil mu'minin yaa ko moom ñu gëm yàlla bokkuñ ci gis ni waaye beneen aaya bu ñu waxul lool rek ñun ñëpp ci bokkayam ixwatal iman yàlla bi mu waxee loolu ba pare summa tabayyana subhanahu li nabihi yàlla leeral na yonentam bi annahu law daa gayruhu la kaana min jumlatil mushrikin yow yonent bi soo woowoon keneen ku dul yàlla di nga bokk ci bokkaalekat yi yàlla moo ko wax yonent yàlla bu ne yonent bi la in ashrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxaasirin yow yonent bi soo ma bokkaale woon sa jëf dana yàqu da nga bokk ci ñu bokkaale boo déggee ñu wax loolu yonent bi kon yow lu lal nga war a def yow mooy kon nga xam ne yow moom waxi noppi fekkee yonent bi la ñuy joxoñ baaraam naan ko soo bokkaalee say jëf yàqu masama ak ñun yàlla ne yonent bi wala tad'u min dunillahi bul woo ku dul yàlla maa laa yanfa'uka ku la dul jëriñ wala yadurruka du la lor nga la waay bul woo ku dul yàlla koo xam ne du la jëriñ du la lor fa in fa'alta fa innaka izan min az-zalimin saa yoo ko defee bokk nga ci tooñkat yi bokk nga ci bokkaalekat yi izan fa du'aa'ul amwaat wal istighaasa bihim shirkul akbar woo ñu dee ñi xettaliku ci doomu aadama bu fi nekkut doomu aadama bu faatu boroom xam-xam yi nee nañ loolu bokkaale la yunaafi at tawxid dafa dàqonteeg tawxid kennal yàlla fal mayitu qad intaqala qad inqataa amaluhu fa huwa bi xaaja ila man yad'u lahu fa kayfa yutawajjahu ilayhi bidduaai min dunillah ku dee nekkatu fi génn na àdduna dafa soxla ñaan kon noo koy ñaanee ndeysaan arab yi dañ ne faaqidu shay ilaa yuutihi ku amul doo maye sooy ñaan nit pour mu may la sax day fekk mu am soo tiimee ku amul di ko ñaan ndax dina la may moo tax boroom xam-xam yi ne booy wër ku nay dëgg-dëgg ah ñu ne demal ci ku ñàkk booy wër ku nay ñu ne boo dajee ku ñàkk jëlal ndax boo ko ñaanee du la may nga dem ne kii dafa nay fekk nayul dafa amul lum la may wala mu nga kon nag ku dee mënul maye di nga dégg benn néew ci Sénégal ñu ne biñ ko suulee dafa bàyyi ko ci armeel ya ñëw di nekk ak jabar ji ba jabar ji ëmb waaw mu jur doom bu am barke du ma wax kan la nag waaye ku jóg gëstu jël kan la waaw da ngeen de néew ndeysaan benn borom xam-xam mu ne bi muy dem dañ ko yóbboon bi muy ñëw ñoon ñoo ko indi fan la jëlee yére yu mu sol mu ne nit ki nit ki am na jabar dee na ndaw si tënji na jeex na sëy bi jeex na bi waa ji di ñëwaat di sëy ak ndaw si ba ndaw si ëmb kan moo takk sëy bi jigéen bu la tënjee rek jeex na tënji jigéen ku dee ci ñun sa jabar tënji la pare nga sëy ba jeex na ku dee nan lay ñëwaatee àdduna xanaa jànguñu yàlla na mu ne innakum ilayha la taudun ku xas a génn àdduna doo fi del siwaat mais Sénégal moom nit ñi seen bopp yi suuf sunu nangu la loo ci ji mu sax suuf sunu nangu sénégalais seen bopp yi boo ko tojoon léegi-léegi nga dugal ci deux cent suba nga gis garab gi commencé sax ni ci bopp yi ku yor cinq cent pièces fii billaay jëmbat leen ko seen bopp yi suba ngeen gis mu sax loolu lan la ci waa ji bëgg a wax mooy loo leen wax ñu gëm ko sénégalais loo ko wax mu gëm ko mu gëm ko boo ko ne damay gis yàlla mu ne dëgg la gars yi dañuy gis yàlla dañ koy gis ni jaxaraan gis Macky Sall sax yombul waxuma laa gis yàlla nag wala ñu ëpp ci yéen fii kañ ngeen nga ji gis Macky Sall face à face télé rek ah te mu ngi nii di dund léegi ngeen bëgg gis yàlla yonent yàlla Moussa mënu doon gis yàlla yéen ngeen bëgg ko gis ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi fi nit ñi luñ ci wax luñ leen ci wax rek ñu daal di koy gëm te diine du loolu diine du loolu sunu benn sunu benn papa doomam dafa ñëw rek na ko père gis naa yàlla de mu ne ko abo mu ne wéy mu ne loo ko wax mu ne waxuma ko dara mu ne waaye tey rek ma yow nga xam ne man plombier laa damay taxale nga gis yàlla waxu ko sama problème nga ñëw fii rek mu jël yat waaye wulli waa ji ba yat bi damm ne ko suba boo ko gisee di nga ko wax sama problème waaw wax na ko dëgg ku dóor dóor yu métti da koo dóor bant bale ba mu damm bale taxaw ne ko yow nga xam ne man sama problème yi ni mu bëree nga gis yàlla waxoo ko nga ñëw fii di ma indi ah koo dóor ba mu nooy waaw boo lëgee xaw ma kan mooy gisati yàlla waaye moom du ci bokk waaw dootu ko waxati de reew rek waaw reew rek kiris karas sa tubéy bënn sa nopp def sa bopp bi mu cuqaaral di nuroog puubu kaña nga yow fajar naan gis naa yàlla ay caaxaan la rek mbokk yi allahu subhanahu wa taala kaashifu dur waxda yàlla rek mooy dindi jafe-jafe wallahi kenn du dindi jafe-jafe ku dul yàlla koo yaakaar ne mun na laa dindil say nattoog say jafe-jafe da ngay nax sa bopp yàlla rek moo la ko mun dindil inna man yusibu al abd min faqrin aw maradin aw gayru dalik min anwaai dur laa yakshifuhu illa allah waxdahu wallahi lii tel jaam bi lii dal jaam bi ci ay ñàkk ci feebar ci ay nat ci ay lor kenn munu ko dindi ku dul yàlla fa in asaabahu xayrun aydan fala ahad yaruddu fadlahu bu la yàlla indilee xéewal aussi xéewal bi kenn munu ko téye day ñëw force nga jot ci ku mu neex ku mu naqari da nga ciy jot parce que yàlla moo la ko programmé day ñëw yàlla du programmé lu nit day am ngénte wala xëy suba di ngénte asamaan si xiin ñuul kat nga gis waa ji daw di jënd xorom di suul pour du taw yàlla taw ba fay mbana yi lu tax nit ñi téewuñu ndox mi wala wala gis leen loolu ah da ngay gis borom kër moom kenn moo yor kër gi famille bi mën nañ juróom-ñaar téeméeri nit ñëpp moo leen yor yàlla xëy ni ko kaccat rey lu tax nit ñi jàppuñ ci ne loolu yàlla ni neexuñu kon yàlla lu mu def kenn mënu ci dara ñaata nit ci ñun la yàlla rey seeni ndey wala seeni baay da ngay tiim jooy jooy ba sonn rek dem ñibbi tus nga ci munu tus yàlla moo ko def moo tax mu ne faalun li maa yurid maay def lu ma neex te yéen lu ngeen def suba ma laaj te man lu ma def kenn du ma laaj laa yusal am maa yafal wa hum yusaluun kenn ñemul taxaw naan yàlla lu tax nga rey sama pap aja fii nag koo fi rey mbokkam mu dem tribunal waaye yàlla moom bu ko ree doo dem tribunal alhamdulilahi rabbil alamin nag mu naa ndogalu yàlla ñu naan la waxal laa ilaha illa allah nga naan alhamdulilahi rabbil alamin nit ñi gis nga allahu akbar kon nag nanu gëm yàlla nanu xam ne yàlla mooy yàlla yàlla mooy buur bii def te lu mu def kenn mënu ci dara us kenn mënu ci nañ gëm yàlla ñu noppalu mbokk yi nanu xam ne sunu borom subhanahu wa taala mooy def te kenn du ko dindi te lu mu def noonu la fa kullu ma faala al jalil fa huwa jamil lépp lu borom bi def loolooy lu rafet ak lu mu mën def rek loolooy lu rafet loolu daf la war a neex da nga ko war a nangu parce que loolu la ñuy xàmmee al imaanu wal qadar al imaanu xayrihi wa sharrihi al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi loolu mooy imaan moo tax gis nga imaan ñu bëri amuñu ko al imaanu bil qadar da ngay gëm dogal xayrihi wa sharrihi su neexee yàlla la bu naqaree yàlla la mais sénégalais bu neexee ndeyam a ko liggéey bu naqaree nag yow yàlla la yàlla moo ko teg waaye bu fekkente ne lu neex la ki gëree la non daf koo mérité parce que yaayam liggéey na ko ci kër gi waaye nag bu fekkee musiba la waaw ñu ko delloo yàlla gis nga sénégalais moom yàlla du def lu baax bon rek parce que pas-pas boobu lañ ñu jàngal bu baaxee waa ji moo ko góorgóorlu wala yaayam wala baayam moo ko encadré su bonee ñu doog a ne yàlla la gis ngeen loolu musiba la loolu pas-pas bu baaxul la pas-pas bu wérul la su baaxee ak su méttee yëpp yàlla la yonent bi dafa xëy suba julli fajar ba pare jàkkaarloog saxaaba yi ne leen amu uminuuna antum ndax gëm ngeen yàlla Omar ne naam waaw waaw gëm nañ yàlla kay mu ne fama alaamatu imaanikum luy wane gën ngeen omar ne narda bil qada wa nashkuru fi raxa wa nasbiru alal bala bu neexee ñu sant yàlla su mettee ñu muñ buñ yàlla tagee dara ñu nangu ko loolu mooy im gëm yàlla waaye yow bu neexee doo sant su mettee doo muñ bu la yàlla tegee dara ngay jàmbat ana luy wane ne gëm nga ana luy wane ne gëm nga te dañ la ne woon bu neexee santal yàlla su mettee muñal loolu lañ la waxoon léegi ñun duñ ci def dara mbokk yi ci gàttal ci tomb bu mujj mooy aqsaamu du'a mooy xeetu ñaan yi xaaju ñaan yi ad du'a u min al istighasa li annahu yakunu min makrubin wa gayruhu wal istigaasatu la takunu illa min al makrubi ñaan a amu min al istigaasa moo gën a yaatu moo gën a xóot moo gën a matale xettaliku ñaan ak xettaliku du benn ñaan moo gën a mat a am min al istigaasa limaza li annahu yakunu min al makrub ndax ki yàlla teg natt moom mooy ñaan ki yàlla teg ay coono mooy ñaan wa gayruhu mu ne wal istigaasa la takunu illa min al makrub xettaliku du nekk ci lu dul ki yàlla teg ay nattu wa yanqasimu du'a ila qismayni ñaan dana xaaju ñaari xaaj du'a wa ibada ñaanu jaamu yàlla ak du'a boo xam ne isti'aana la ñaanu sàkku ndimbal bu dee ñaanu jaamu yàlla boobu yàllaa ko moom jaam bi daf koy jegee yàlla ci ay jëf yu baax ci ay julli ak koor ak jàng alquran ak saraxe tudd yàlla ak yeneen yu mel nii kon loolu yàllaa ko moom nañ ko ko defal moom yàlla subhanahu wa taala beneen bi nag wa huwa talabu ma yanfau daa'i mooy ñaan boo xam ne kii ñaan day ut lu ko jëriñ min jalbi nafi aw dafi darri ci mu am lu koy jëriñ wala mu koy dindil lu lor kama yatlubu min rabbihi sihati sihatun fi batnihi comme ni mu koy ñaane ci boroomam wir ci yaramam bu feebar faalal abdi kon war nab jaam an yunazila hawaijahu na wàcce ay aajoom bi rabbihi ci boroomam jaam bu buggee xam ne jaam la dëgg nay jox yàlla ay jafe-jafeem na ko jaral mu sujjóot julli sujjóot jooy ñaan yàlla ndax yàlla dimbali ko ci jafe-jafeem yàlla dimbali ko ci ay nattoom di nga gis nit ñi ñu nekk di dem ci ay nit di def seeni problème nangam nangam nangam waaye lu néew ci doomu aadama yi ñooy am jafe-jafe sujjóot ñaan ko yàlla ba pare loolu mooy sunu mbir balaa ngay dem ci sàmbaak dembaak gisaane kat yi caaxaan kat yi pettaaw kat yi xërëm kat yi comme temps yi comme fan yi ndaw si nu mu nu mu xewee nit ñi di dem di ko rang muy fen rek feni kese kese kese kese kese wallahi yàlla da leen di natt jàngeen aaya bi semaine bële passé wa annahu kaana rijalun min al insi yauzuna bi rijalin fa zaaduhum wallahi fenkat la te wallahi di ngeen xam ne fenkat la yàllaa koy xaar rek yàllaa koy jaay rek muy wax rek mbir yi di am muy wax rek mbir yi di am bis lay xëy rek wax rek dafa ñuul yàlla def ko mu weex loolu mooy mbiru yàlla boo nekkee ci dëkk bi def loo ne yàlla dalay bàyyi rek ba gaa yi di la yëkkati nag ba nga dem ba ci kaw xam ngeen li may wax am na ñu ko fi doon def di wax rek waaw waaye yàlla moo leen yëkkati ba ci kaw ne leen ndullu ci suuf boobu ba léegi yëgaatuñ kon nag na leen delloo si xel yi ñu xam ne yàlla mooy yàlla li yàlla moom buñ ko jox nit li nit moom nag ñu jox ko ko waaye li yàlla moom moom yàllaa ko moom bu ko kenn jéem a foqarti mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala nee na wa qaala rabbukum ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen kon li moo doon dar si tey ñu ngi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp ñu ngi jéggalu ci kàddu yi asalaamu aleykum ورحمة الله وبركاته